mais est-ce que ku ndaw ñu topp war ngay wax wax ci li xal yi naan. yow da bëri wax yow tu commences vraiment à parler beaucoup trop yow sa éthique rek waru la may ngay passer un faux information en tant que journaliste yow sa sa gémmiñ gi ci boppam la muy xasan moo la warut sëñ bi Ousmane Sonko du moom ne ku dee sa yaay juraat de ñun ñoo ne ñun patriotes yi ak sympathisants yi ah ak militants yi. ñun sénégalais yi lambda ñun ñoo ne ku dee sa yaay juraat est-ce que yaa comprendre ku dee fii sa yaay juraat ma tegal la si ne ku sa ndey ménopause sa baay takkaat beneen jabar kooku jural ko déggoo ma de te bu laa laajoon téeméeri bakkan ñu tegal ko Ousmane Sonko Ousmane Sonko c'est notre affaire à yow nag sa bakkenu njaboot sa bakkenu jabar sa doom sa ndey seeni bakken yow yaa ko moom téye ko mais ñun suñuy bakkan ñun ñoo ko moom te ñoo ko jox Seydina Ousmane Sonko mu sell mi déggoo ma de sëñ bi yow yàgg naa nag di la dégg tu as tendance à dire du n'importe quoi wala ngay fen wala ngay joxe information wala da ngay dagg vidéo yow lay dox di dagg vidéo yow dagg vidéo sax moo la warul yow en tant que journaliste da nga war di joxe information yu wóor yow sa éthique si boppam moo la mayul ngay dagg ay video di ci wax mhm. yow pro Macky nga défendral Macky Sall comme tu nous on s'en fout de ça suñu yoon nekku si mais gis nga Ousmane Sonko booy wax ci moom da ngay joxe renseignement bu leer parce que gis nga Ousmane Sonko ku yàq ay waxam ñun dañuy génn ñu defaraat waxu Ousmane Sonko te du yow sa classe gii nii sa woowaay bii ngay mel ni ñànkataan bu amul soos du yow yaay tax yow ba ñun du ñu défendre Ousmane Sonko sa classe gi nag foo leen taxaw ngeen yàq wax Ousmane Sonko suñu classe gi ñun dañuy taxaw ñu defaraat wax Ousmane Sonko pour te l'appeler rek Ousmane Sonko neewul ku dee sa yaay juraat de ñun ñoo ne ku dee sa yaay juraat waaw man mii sax bu ma deewee sama yaay juraat sama yaay bu demee ménopause sama papa damaa takkaat beneen ñaareel mu jural ko ay doomam déggoo ma de ku dee fii sa yaay juraat ñun ñoo ko wax et on assume pleinement ñaata député ñooy toog à l' assemblée nationale ñu naan mati sàll na commencé di rey jeunesse bi di leen def ci ay saaku di dem di sànni jéeg ñaata nit ñoo fi toog ci ay plateau ne nañ rey Ousmane Sonko et quand nous les patriotes ku dee sa yaay juraat ngeen jël ko bu koo saf Ousmane Sonko yow ku naa fekk nga ah? sëñ bi yow ku naa fekk nga ku mën a fen nga yow ku mën a nga yow danga ne yow journaliste nga waaye journaliste bu mën a ndey fen nga yow. parce que yow doo wax dëgg ku mën a ndey dun nga sa kanam bu wow bi ngay mel ni lu may bañ a tudd ku mën a fen nga dangaa mën a fen et commence commences à beaucoup parler da nga wax yow ku bëri wax nga nag mais nous tant que on est sur TikTok yow mënoo ñoo génnee TikTok mënoo ñoo génnee ci réseaux sociaux yi foo toog nga yàq deru Ousmane Sonko wala nga wax ci Seydina Ousmane Sonko naka sudul noonu ñun ñii ñu génn ñu defaraat ay waxam yaa ngi may dégg. boo demee nag boo demee ba nga ne yow journaliste

moomoo leen ko doonnuwu leen ko ci Adam doonnuwu leen ko ci Ève doonnuwu leen ko si seeni ndey doonnuwu leen ko si seeni baay Ousmane Sonko nag taal bu yàlla taal la puus mu takk ñàkk puus mu tàkk seen classe gii nii da na a raciste ndeyam teg ci mën na fen mënul a duul waaye Ousmane Sonko di ngeen ko yàbbi ci nii wala ngeen yàbbi ko ci naa man nag xala j'attends fermement ta réponse mënoon naa la tontu sans pour autant def collage su ma defee collage nag pour nga pour pour nga gis sama vidéo moo tax ma defaral la collage tiituma la ragaluma la faalewuma la bàyyil fen sa éthique mayu la pour ngay fen un faux journalist nga yow tu es un faux di dagg ay vidéo di teg Ousmane Sonko waxu ko ñun ñoo ne ku dee sa ndey juraat yow nag sa jabar say doom sa papa sa nday sa yaay kooku yow yaa leen moom bu la neexee nga téye leen mais ñun suñu bakkan ñoo ko moom te ñoo ko jox Ousmane Sonko te bu manifestation amee dañuy wàcc sur le terrain bu ñu bu ñu reyee suñu ndey yi ñu dem juraat bu ñu demee ménopause suñu papa yi ñu takk keneen ñu juraat beneen doom ñun ñoo ko xëy on assume pleinement bu la mettee ne xoolal nga bërëngu bu la mettee tali New York yooyu nga nekk xaw ma France xaw ma Paris xaw ma fan nga bërëngu foofu noonu wala aada fa xoolal nga tal alimet nga tek ci sey digu tarantej lemal sa géem bobu sa maq si mulus bi ba nga tek ko la où je pense nous on s'en fout de tout ce que tu dis mais bo fi fene say fen dañuy génn tiiñal la wax ñëpp ne yow duulkat bu noq